ginnaaw bu ñu sante yàlla nag dañuy julli ci Seydina Mohamed jaajëfal si Ahmadou Bamba jaraw lakkal maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan yàlla mu yokk leeri Serigne Saliou Mbacke ya taas na ci barkeem yokk leeri Serigne Sidil Muxtaar taas na ci barkeem te yàggal fi Serigne Mountakha Mbacke ba mu àggale liggéeyu Serigne Touba bi noonu la ñuy ñaane waat yàlla mu yokk leeri Serigne Thierno Diouf Lambaye ya taas nu ci barkeem te yàggal fi Cheikh Abdoulaye Diouf ba mu eggale liggéeyu Serigne Thierno Diouf Lambaye bi ci Serigne Touba ci barke Cheikh Saint bi di ñaan Cheikh yàlla yàggal fi Cheikh Jëmb Fall ba mu àggale naal bi Cheikh Ibra naaloon ci ndigal mu àggale ko ci barkeb Serigne Touba tey nag ñëwaat nañu ci Cheikh Abdou Ndiaye mi jóge woon ci dikkam ñëw ci ikkam waaye tey nag dañuy wax ay jaar-jaaram li ko jëlee ca lee ba indi ko ci lii waaye duñ ci jiital kenn ku dul ndimbalal yàlla ak yónnent bi ak Serigne Touba ak sunu sang ba seex Thierno Diouf Lambaye mi moom mi nga xam ne woon xàmmee woon na luy ñëwagut tey njariñ xàmmee woon luy lore te du jariñ moo ma waxoon ne ma lii ay jaar jaar la rek waaye di nga jóge ci ñoom ñëw ci ñun loola it yàlla indi na ci tawféex ni ko si sëñ Muntaxa Mbàkke commencé ciy waxam tawféex loole ba mu amee ma nekkoon ci wàllu woowu saayire lool àdduna lool waaye yàlla dimbali woon na ma ca ba mësuma caa wax genn kàddu goo xam ne day lore wala journaliste xëy bind ci man wax ni lii waru ko a wax wala ñeneen ay kilifa wax ne lii waru ko waaye booba yàlla jublu ci ne tey bu ma jëlee ca loolu dugal ma ci li nga xam ne mën naa caa am ngërëmam kenn du ne moo fi defoon lii démb kon bu mu wax lii tey samay jaar-jaar nag bokk na ci Serigne na Diouf bàyyi sama sang wax ju ma daan wax tey jii lépp teg naa ci sama bët te muy njariñ moo tax ba ma jubloo ci bàyyi ko ci kàddu yooyu mu ma daan wax te mu taw ci sama kaw ba doon lu suppi sama jëmm ak samam xel ak sama jëf ak sama pëstéef jëmale ko ci Serigne Touba may waxtaane yàlla ak yonent bi ak diine ak lislaam ak Serigne Touba am naa ci nag ku ne am naa ci nag lu ne xam naa ci lu ne dem naa ci it fu ne kon ñi nga xam ne dañoo ñëw tey pour questionner walla laaj jaar jaari Cheikh Abdou Ndiaye tey mën nañ cee waxtaan ba àddina bépp mën koo jariñoo wala sax àddina bépp mën a xam fi mu jóge ak fa mu jëm moo tax ma ne la ma daan wax ci lu nit di ree wala lu nit di gise àdduna waxoon naa ko ca ndënd ya ak tama ya ba pare léegi lu jëmut ci yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak lislaam ak diine kenn dootuma ca dégg moo tax ba ma ko bàyyee it damaa bàyyi fa ma ko doon defee bàyyi ña ma ko doon defandool ñibbi si Touba gi ñu ko dul def kon loola defet ba ak defo ba day daal di dem te defaru ko day daal di jigéen si suñ cer na waxoon na ma ne lii nga may bégale di ma ko bégale àjjana mu jaaxaloon ma lool ndax ni ma xamee Sëñ Cerno ni mu xamee lu baax ak ni mu awee ci ndigal ak ni mu doon ab taalibe ak ni mu jubóog sa boromam ak Serigne Touba fekk ku nekk ci wàllu àdduna mu ne ma di ma ko di nga ma lii di ma ci bégal àjjana yaakaaroon naa ne lu ma jaaxaloon na ndeke booba yoo dinaa dem ba loolu lépp ma génn ci aw ci yoon woo xam ne ku ko wàccut da dem àjjana muy liggéeyal yàlla ak yónnent bi ci jaamam yi jaamu ko moytu ay tereem tey jëfey ndigalam te bàyyi lépp luy caaxaan dugg ci lépp lu alxuraan digle tey jii mi ngi nii ba tax na am naa ci seexi Sëñ Tuubaa am naa ci doomi Sëñ Tuubaa am naa ci kilifaay diine yi am naa ci kilifaay lislaam te taxut ma ñàkk aada ak cosaan kon lii laa leen bëgg a xamal tey ba tax na ñi nga xam ne dañoo jëw tey pour laajte kan mooy Abdou Ndiaye ci bi mu jógee ci dëkkam ñëw ci ikam ak fi mu jaar ànd naag Youssou Ndour ci tournée yu bari ànd naag Baaba Maal ànd naag Omar Pène ànd naag Thione yoroon naa sama tur bu bopp tudde ko damay wone ndeke booba yàlla dina nëbb loola wone boppam ci man fii rek laa jaar tey suma cee def lenn loo xam ne tey dinaa ko rëccu waaye nag ba yàlla bëggee ma bañ a rëccu daa bàyyi lële rëcc mu dugal ma ci li nga xam ne duma ci rëccu duma ci rus te su ma jaaree ci li mu digle mu defal ma lim ma digoon te lim ma digoon mooy ma jaamu ko ba am ci ngërëmal yàlla maa ngi jéem na ma ñëpp ñaanal yàlla xéewale ma ak musiba ak balaa ba fi ma ci bëgg a ci yàlla nit ñi xam li yàlla jële ci man ak li mu def ci man xam ne li mu def ci man a gën fopp ci kàddu yooyu laa jublu ba lépp lu am rek ñu ne nañ ci dugal waxtaanu Abdou Ndiaye lii seen différence mooy seen référence li ngeen li ngeen li ngeen référence bi ngeen am ci man ba tax tey ngeen ñëw mooy différence bi ngeen bi ma am ba tax ma ba loola différence bi mooy bàyyi àdduna jublu ci sàkku àjjana te yàlla bind àdduna bind àjjana am lu mu digle ci àdduna am lu mu diggee ca àjjana mooy lépp loo xam ne day nuroog ay caaxaan wala luy loo xam ne nii bokkut ci lu yàlla digle bokkut ci lu yàlla rafetlu te digalu ko kenn te sa sëriñ du la ko digal loole mooy sama différence ak li ma nekkoon te bàyyi ko te jublu ci li yàlla bëgg te ma mën ca am ngërëmam junj doy na xel bu ñu gisee ne bàyyi naa ko ñëw fi nga xam ne yàlla bëgg na ko te soo woppee di nga bëgg ñu ñaanal ci te boo dee bëgg nga mu gunge la te adduna kenn bëggut a wopp ñu dee ci ñaanal bëggoo dee mu lay gunge loola mooy li ma leen ci woo leneen li ci des yéene naa leen itam jàmm ndaxam du ma wax ne lañuy def bon ndax yàlla rek a xam te moo xam it fa muy mujj waaye li ma ko ñaan nee naa ko waxtu moo julee bu dee suba ma nar caa dellu fii ak tisbaar nag ma faat ci diggante bi bu dee tisbaar ma nar caa dellu fii takkusaan nang ma ñaan naa la nga faat ma ci diggante bi bu dee takkusaan ma nar caa dellu fii ak timis ñaan naa nga faat ma ci diggante bi noonu laa ko ñaane ci bis beeg waxtu yeeg minute yeeg kees yeeg seconde ba ba ma tiime njool màkka ca màkka sallallahu taala alayhi wa sallam loolu laa ko jëkk a ñaan ne ko ca sa xarit ba laa jóge ca sa jëwriñ ja te la ma bàyyi ba ma ba indi ma fii loolu laa bëgg jàppale ma ci ba bu ma ca dellu ndax adduna dafa yaatu te seytaane daa bari doole kon maa ngi leen di woo fu fi waay man nekk néewuma day kenn lii boo ko defee doo am lii ndax du ma yàlla waaye li ma gis daal bëgg naa ñu gis ko li ma ñam bëgg naa ñu ñam ko li may dund bëgg naa ñu dund ko naa taw féex rek li Sëñ Muntaxa di wax ci waxam ak tedd ak diine ak lislaam ak wërsëgu ma xamul fu muy jóge ci yàlla ak ñooñam lool waaye nag maa ngi ciy xaar yàlla ak ñooñam li ma la wax rek waa mas naa koo am nag maye ko oto boo xam ne dama ciy doxal yàlla ay li mu bëgg di ci doxal lislaam di ci dem ci këri diine gi di ci waxtaane gi yàlla ak yonent bi ak di ci gëstu lii nga xam ne dama ne ku lu amati nañ ci déglu waxtaanu Abdou Ndiaye fu ma man doon bëgg naa leen faa fekk waaye ci yàlla ak yonent bi waaye maa ngi ñaan ci yàlla ak yonent bi gëmmi Sëñ Tuubaa lu ma waaye di defal te adduna tax nu ngi ko téye duma la ca gërëm duma la ca sant waaye kuy def te yàlla tax ak yonent bi nag ak Sëriñ Tuubaa ak lislaam ak diine woo naa la nga nga nga jàmm ci loolu waaw am naa kër de wax dëgg yàlla waaye àggagul pour ma dëkk ci waaw naa kër du benn sax du ñaar lool ngir yàlla ak yonent bi ndax kuy jàppale àdduna war ngaa jàppale àjjana ndax lépp loo loo def ci àdduna te àdduna tax àdduna rek lay yem waaye loo defal nit ki te yàlla tax kenn du la ne lu tax te loo ca ji mu sax te mën nga caa jële ak texe loo def te yàlla taxut bis dina jot ñu dégle na la lu tax te loo ca jiitu sax te mën nga caa jël ak texe di kon ku may jàppale tey bëgg yàlla fay la ngir ëllëg li ma mënut te bëgg ko te di ko ñaan yàlla ak yónnent bi ak Sëñ Tuubaa ak lislaam ak diine ah nga jàppale ma ca mooy waruwaay dëkkuwaay ak materiel ak koom moo xam ne dinaa ci mën a liggéeyal sama borom dinaa ci mën a téye sama xel ba dootuma xelaat leen lu dul yàlla ku ko def daal yàlla nga ko defal ku bëgg a defal yàlla nag maa ngi nii lenn ci sama njaboot fi mu ne noo dëkk lenn ci sama njaboot it wutal naa leen fi dëkk waaye bëgg na maa dajale sama njaboot gépp fii ci Touba te ñoom ñëpp daje nañ fi ndax sama lépp a ngi Tuubaa waxoon naa leen ne léeg-léeg ma wax ko sax nit ndeysaan mu ree ndek loolu dëgg la ci man sama xol dama ne ba ma bàyyee lépp féeteeg yàlla ci laa am kër Tuubaa ak soxna ak doom ak ëpp sëriñ ak bàmmeel côté boobu li ma ciy tàggatoo mooy ñaanal ñëpp rekk ñu nekk am jàmm te sax ci jàmm te woote jàmm te bañ a woote jàmm te wuulu yàlla te doyloo ko te gëm ko te sax ci cant te moytu njàmbat te xam ne sant rek la yàlla santaane te moo am ndolleen te ñu gëm yàlla te doyloo ko te yéenente lu baax te moytu sosale loo sosut ngay sosal ka ko sos te xamoo ci amoo ci lu la wér kon ne yàlla defal ñëpp jàmm ak tawféex ni ko suñ suñ bi baax waxee suñu xalifa ah li may waajal kay mooy lii ma waxoon rek su ma waxtaanee ci waxtaan wax naa ko maa ngi waajal lépp loo xam ne nii rek àdduna nit ñi dugg nañ ca la ma ca xam te mu man a jariñ nit ñi ma jaarloo leen ca lama ca xam te mu mën leen a lor ma moytuloo leen ko ndax yàlla bëggut a lor kenn waa ni tey dem ba lor boppam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa yal na nu yàlla defal tawfiq te defal nu jàmm te defal nu ngëneel ak lanu lu bëgg te mu gën ci ñun te yàlla miy gënal te xam ko yal na ko gënal te defal na